ñuñu ba bu ñuy tànn xam lu ñuy tànn bañ a li leen daloon ci yëfu dof yi ay yeewu askan yi ñu fal yi dof ak nit ñoo xam ne kenn xamul leen finalement ça n'a donné aucun yeewuñu wenn askan <laughs> waaw yenn askan lañ yeewu donc voilà <laughs> yooyu moom jàpp naa ne Sénégal yi war na ci kenn koo xamante ne lu ñuy lijjantee ay mbiram enfin écoutez vous savez moi personnellement moo sañoon nit ku bokk Pastef moom dootu bokk ci élection ba bufta bi wax yow moom wax nga ko ce sont des terroristes Maintenant, le Conseil constitutionnel a validé la candidature de Diomaye. Ouais. Maintenant, la le, la justice dira nan lay demee campagne. mais man pour man bon, le conseil a dit ouais. que candidat la mais ouais. man pour man parce que nag la sécurité du pays kooku nag Macky Sall lañ ko dénk de dénkuñu ko conseil constitutionnel dénkuñu ko pouvoir judiciaire or Bassirou mook su nee nañ Bassirou mooy Sonko Sonko Bassirou loolu lañu wax Bassirou terroriste Sonko terroriste c'est des fascistes c'est des populistes mais Moustapha ñi kenn c'est les promoteurs di gàtt sa gàtt sa politique ñoom ci seeni i pen ñoo rey lu lépp juróom fukki nit ci réew mi xaaral màggalee pap ah. on n'a pas besoin de savoir que li ñu dee ci Sénégal fenn Ousmane Sonko moo leen rey ça on n'a pas besoin de procès pour le savoir on n'a pas besoin de procès pour savoir que li alalu réew mi yàqu Ousmane Sonko moo ci fenam la yàqoo on n'a pas besoin de procès pour savoir que alalu doomu réew mi yàqu yi ñu doon taal ñoo ci ci seenu fen la jóge on n'a pas besoin de procès pour savoir que alalu doxandéem yi muy Auchan Total ak yëfu tubaab yi fi yàq waa waa waa expositeur ñoo ñoo ñoo ko def encore une fois le conseil constitutionnel a estimé que oui. parce que xëy na amul élément yu mu leen mën a lu yu mu ko ma ci mën a génne. waaye nag ki yor la sécurité du pays. moom doit veiller à ce que les terroristes là. d'accord mais mais mais moom laa la wax ñi xalaat ni woy le code électoral ci pàcc boobu moom. xaaral ma c'est-à-dire foofu aussi dafa am loo ne. pour man jàpp naa ne le gouvernement du Sénégal dafa am faute bu mu def. mooy cest saay-saay yu mel ne waa Pastef bu fekkee da leen di xeex da jël matuwaay yi mu war a jël doo yem ci décret décret ba nga dissolution parti il fallait avant tout modifier le code électoral dugal ci lu mel ne le quatorzième amendement bi nekk ci constitution américaine. américaine ne parti boo xam dañ ko dafa dañ koo dissoudre pour appel à l' insurrection mën a entreprise terroriste yooyu yëpp ñu xam ne moom la ñuy topp ñoo saay-saay yooyu ñu doo ko ci dem ci la loi sur les partis wala ñu def ko ci constitution bi soo ko defee parti bu ñu dissoudre pour terrorisme ña ca nekk dootuñu bokk ci élection benn dootuñu takk ndomba tànk conseil municipal. conseil départemental député ak dootuñu mën a nekk président ah, parce que nag caay caay gi nga parce que xam ne dafa yomb ñoo xam ne dañoo bëgg a jël pour da pour daal pour rey démocratie rey république ñu xëy xëy naan leen fal na ñoom insurrection la ñu bëggoon def dañu bëggoon daane réew mi parce ñoom ce qu'il voulait c'est le départ de Macky Sall maanaam coup d'état nit ku bëgg a def coup d'état nga di ko bàyyi muy def muy bokk ci élection. oui mais li ngay wax ni yëpp amul. waaw mais dugg li ma sax. oui moo waaw léegi ci code électoral fi la wax bokk gi ma am na war ñu koo bàyyi kooku moom c'est acté. oui ci loolu sama xel xalaatu. d'accord loolu laa par contre la hmm. ko ba conseil constitutionnel Macky Sall lañ ko dénk les terroristes les gens qui sont arrêtés pour terrorisme on ne peut pas leen man de bu ma doon bu ma moom. Hmm. ah xaw ma lu procureur dégg naa mu ne ne way bu ñu ñëwee. procureur waaw waaw c'est-à-dire on ne peut pas ki ki at mu taal réew mi ay nit faatu fi alalu doxandeem yàqu fi alalu doomu réew mi yàqu fi ñu leen bàyyi ñu def ko am parce que ñoom bëggoon bu ñu ko amoon. Hmm. parce que dañoo bëggoon Macky Sall daanu balaa. élection kon pour yow war ñu koo bàyyi mu génn. wax rawatina campagne xel xalaatu ko na. <laughs> ah waa léegi ngay légaliste mu bokk ci vingt candidats yi. non non déggul non non ñi war a dem waaw waaw waaw xam xam naa fi nga waxee moom laa waaw waaw da ngay déglu bu baax waaw ñoom c'est des terroristes gis nga man li ma gëm mooy waa parce que bokkatuñ ci champ politique et champ démocratique. Hmm. pour man leurs droits sont éteints par leur acte et leur manœuvre c'est des terroristes c'est des fascistes maintenant nag bon li may wax toujours bon s'il y a cinquante et un pour cent de chrétiens sénégalais pour mën a mën mën a fal ku bokk parce que c'est hmm. leur affaire. Hmm. donc ça ne fera ni chaud ni froid. kon yow même ay vidéo yi sa yoon new ci. ah bien sûr je ne regarde même pas ces jours-là. waaw ñooñu ma ñooñu pare naa ci ñoom. ay terroristes lañu. et pourtant yaa ngi gis ay ralliement Aminata Touré nga fay dem. waaw mais mais xam nga moom non nee naa genre nit yooyu moom Pape dimbali ma genre nit yooyu moom. ah bu xaj bu xajamal xajamal sama gimiñ. sa à sama gimiñ sama gimiñ ñooñu euh, euh, euh, ëpp na leen. dimbali ma rek ñooñu sama gimiñ ëpp na leen. ma je ma bàpp de principes et des ñaan dama ne nit ki la nga nga nga nga ne ñun yoruñu agenda Sweet Beauté yoruñu agenda Sweet Beauté ngay dem di jàppale suqub ki ki ki dem Sweet Beauté ba réew mi tàkk non franchement am na yoo xam ne Pape. Hmm. dimbali ma rek ngir yàlla y a des gens qui ne méritent pas que de leur problème. vidéo ba nag mel ni xamul na lépp. li nar a xew ah? <laughs> mais xam ne dañ man de xamoon naa lépp lu nar a xew Pape def acte ba tey xamoon naa dañ ko jàpp <laughs> xamoon naa daaj tos parce que parti xamoon naa du bokk ci xamoon naa dañ ko jàpp xamoon naa dañ tas parce que parti xamoon naa du bokk ci élection ah du wàll yu xam nga li ma xam nga wala encore une xam nga Sénégal yi man c'est-à-dire c'est extraordinaire cest ab saay-saay buy doxaani ba gone gu jigéen yuuxu ko jébaane ko ñu ba ko beddee wàll yu naan ko sell ki et puis problème parlons un peu de de cas de Diomaye Diomaye bi ñu ko jàppee Ousmane Sonko daf koo daf koo dindi ci secrétariat du du secrétariat du parti n'est-ce pas. wutal ko intérim. waaw ah, waaw ah, wutal ko keneen koo remplacé. waaw ah, léegi moom ki ñu jàpp wóolu ko ci dénk parti bi daa bëgg Sénégal dénk seenum réew. non il faut sérieux c'est qu'en réalité. non en réalité en réalité en réalité. Hmm. Diomaye s'est opposé à Ousmane Sonko c'était pas son candidat. Diomaye s'est opposé. à Sonko. ah ah oui s'ils avaient choisi un autre il classe dans ce Ah oui. Ah bien, bien sûr. D'abord, c'est c'est pas lui qui l'a choisi. Il a été choisi par les anciens candidats. da hmm. nga koy suivre ñoom ñoo bind communiqué candidat yi ñoo bind communiqué mooy seen candidat yow dégg nga bu Ousmane Sonko bindee ca jamono yooyu pour wax ne mooy candidat et puis bu fekkee moom mooy candidat lu tax mu ne bu jox Habib Sy les parrainages de député parce que parrainage député moo moo ëpp sécurité parce que Diomaye mënoon nañoo invalider candidature hmm. par les par les doublons extra extra extra alors comme les c'est sécurisé. kon Sonko kii candidat am. ab Habib Sy. Habib Sy Habib Sy moom la bëggoon mu def candidat xam nga Habib moom moom mooy bis yàlla sàkk mu dem su këram di wan jabar yi ne leen may seen baay <laughs> di nax booy yi xam nga nag Habib day jaay la day jaay nopp yu gudd waaye dana xam ne booy yu passé bi ku gën a guddi nopp foofu dem foofu di di wane ne man may seen baay dégg nga bu ngeen ma joxee bu ngeen ma falee su ma defee six mois wala un an jox leen yëpp yi <laughs> di leen nax naan naan xam naa projet bi attan naa ko waay waay sëñ bi. yow moom mi xay mooy bàyyi système <laughs> naan attana procès bi d'abord procès bi sax kenn xamul lu mu doon moom <laughs> xam sa moom Sénégal la neex man boo gisee habitude bés bu yàlla sàkk nag mu woote loo xam def kër Sonko daal di nuyu jabar yi toog alors dangam daal di di yërëm yërëm xam naa man sama dewaat sax est-ce que du jabaru Sonko yi ñoo ko ñoo wax Sonko pare neel candidature parce que abi moom mu taa pare naa citoyen <laughs> waaw Sénégal la neex bu ko def xamante ne ba jaaxle ci nit Pastef moom dañuy kii man cest ñoom daal loo mën a bokk ci système loo mën a bon bon boo ànd ak ñoom rek baax nga. Ah, hmm. loolu nag kii maanu yàlla nit nag sëñ bi ànd ak yow taxul mu baax mais nit ñi nga xam ne ay nit système lañ hmm. nga dégg fi soo nga naan tataa mi bàyyi bàyyi itam ne ko bàyyi bàyyi léegi teg tey ñëw ne ensemble ensemble ensemble oui mais mais loolu yëpp ñàkk ak ñaanam politicien Sénégal ñoo respecté wul askanu Sénégal Pape Moussa mais yu mel nii mun doo ko dégg mukk dans les démocraties majeures États-Unis France le Front national ñi tàggoog ñi boo demee républicain duñ duñ ko jege mukk les socialistes et les communistes wax na Sénégal nag politicien politiciens yi Sénégal ñëpp a mën a ànd ak ñëpp. parce que arrêté amuñu idéologie amuñu programme amuñu amuñu doctrine xam nga lan lañ am. Hmm. seen njëriñu bopp. nit nag bu wut njëriñam fu mu ko mën a jëlee mën na faa